Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar da liggéey ah, waaleykum salaam wa wa barakaatu ñun tafsir ñu ngi lay nuyu di la fay nuyoo di jaar ci yow di nuyu internet yi ñuy topp si site yu am solo yi muy xalifa Muntaxa TV ak xalifa Mouhamadul Basir TV di nuyu internet yëpp di leen siyaara di leen ndokkal ku tontu sa laaj comme ni nga ko waxee tey dañ ñëwoon fii si Daaru Salaam def li ñuy tuddee CLT ñoom habitude di ko def suñ àggee si waxtu waajtaayu gàmmu àndoon seeg préfet ak chef de service yi nekk ci département bi nekk représentant gouvernement bi fii ñoom nag ci wàllu yuñ faree suñ tolloo fii ñaari dañuy daje fii ci Daaru Salaam def CLD suñ toogee fukki fan wala ak la say tegee ñuy dem ñoo ci préfecture def li ñuy tuddee CDD loolu it liñ ci jublu mooy xayma waxtaan wi ñu defoon fii ci CLD bi hmm. proposition yi nga xamante ni comité d'organisation bi jox na ko chef de service yi fi bëgg-bëgg am ci gàmmu gi te muy dëppook ñoom seeni fonction fii ci département bi suñ proposé liñ bëgg ñoomu ñu jël seeni engagement tontu tontu si liñ leen laaj jël engagement ne jël nañ décision def ko niñ ko bëggee loolu moo waraloon waxtaan wi tey ñu def ko ci njiital préfet ak chef de service yi ak le comité d'organisation bi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi dénk ñuy toppatoo mbiram mawlut bi loolu tey moo waraloon ndaje mi nañ ko baaxoo di defit su ñëwee dañuy waxtaan si ponk yooyu ma wax la ñekkee nañ ko waxtaanee si wàllu transport ndax ku wax gamo wax mbooloo ñuy bàyyi ko fu nekk si réew mi ak bitim réew te loolu ku ko tudd sa xel dana dem ci transport ñu waxtaan ci transport lu yombal ñëw yi ak kenn ku nekk fa ngay bayeekook na fay bayeekook ni ngay ñëwee ak euh, ci anam bi ngay ñëwee loolu ñi nga xamante ni ñoo amee wàllu transport si département bi ñoom tamit ñu jël bi leen proposé ci luñ bëgg-bëgg ñoom tamit ñu jël seeni engagement ne danañ wuyu si loolu comité bi soxla si ñoom bayeekoo si dem ci li ñuy wax euh, euh, sécurité ku ne mbooloo tamit ne sécurité ndax mbooloo mi tabaarakallaahu gàmmu daaru salaam gàmmu gu yaatu la ci wàllu mbooloo te ñu ngi gis ne at mu nekk rek mu ngi gën di yokk ci wàllu mbooloo kon ku ne mbooloo wax sécurité ndax it nag ñëpp nag xemuñ am na ñoo xam ne dañuy jóg ngir fas yéene ñëw fii ci xadaraab Mawlaana Seydi El ngir fi guddi gu nga guddi gi gën ci guddi xam nañ ci muy guddi juddug Mawlana eh, Mawlana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xëy ne nii looloo tax ñu jógee fañ mën a bàyyeekoo si àdduna ñëw fii ngir màggalee si ko fi waaye du ñàkk moos ñoo xamante ni li wolof di wax raas dem la def su boobaa nag ñoom dañuy ñëw jaxasoo ak ñi nga xamante ni yàlla tax ñu jóg ak màggal guddi gi neexu ñoo xàmmee waaye ñi nga xamante ni la seen xam-xam si wàllu sécurité muy gendarmerie la si aju ay police ñoom itamit dañ leen di soxla si guddi googu ñoom itamit ñu ngi fi woon bañ leen proposé suñu bëgg bëgg si wàllu woo xam ne lu aju si wàllu sécurité ñoom itamit jël nañ ay engagement ne nañ ko def nuñ ko bëggee la si waasu woon nag si at yi yëpp passé daan nañ si góorgóorlu rafetaloon nañ ko jëlaat nañ engagement fii ne danañ rafetal def sax lu ëpp lañ daan def éléments yi ñu leen laaj nombre bi wax nañ ne dañ ko indi wala sax ñu def lu ko ëpp biñ si bàyyi ko dem nañ si wàllu électricité ku wax mbooloo da nga wax courant ndax fi jamono toll courant moom li si aju bëri na ñoom itamit ñëw nañ ñu wax leen suñu bëgg-bëgg ak li ñuy xaar si ñoom ndax dëkk bii Daaru Salaam kat ku ne xam na ne mu ngi màgg si màgg bu gaaw a gaaw a gaaw si koñ yëpp yàlla dogal na mu ngi si màgg bu ko defee am na santaan yu bees yoo xamante ni dañuy am jafe-jafe si wàllu courant ñoom tamit ñu proposé leen pour ñu yokk wàllu courant bi si dëkk bi wax nañ leen ñaata ay kilomètres lañ soxla si wàllu yokk courant bi ñoom tamit accepté nañ ko wax nañ danañ def seen kéemtalaay kattan pour yokkal ñu courant bi ngeen ñi nga xamante ni ñu ngi tabax kër yu bees si ci si sancaan yi ak ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a tabax ñoom nga xam ne balañ say àgg si soxla ko courant bi àgg si ñoom kon ku wax mbooloo wax gàmm mënooy bañ a wax courant ndax ëpp si li ñuy def si guddi googu li koy alimenté li si ëpp courant lay doon wax nañ leen it ci gàmmoog nawet lañ nekk wax nañ leen comité bi proposé nañ leen ne bëgg nañu indi ñu fii ay groupe yoo xam ne groupe électricien la nga xam ne en cas parce que lu ne mën nay am si nawet lañ nekk te courant tamit machine la mën nay dem ba si kanam donte ñaanuñ ko yàlla sax jafe-jafe am kon su ñu indi lee ay groupe dana yombal mbir mi la courant bi doon def su nekkee leneen am na si te ñaanuñ ko yàlla yëpp groupe yooyu dana mën a continuer lam doon def ci bay koy it wax nañ si wàllu alimentation ku wax gàmmo wax bernde yooyu yëpp ñi nga xam ne ñoo fi teewal gouvernement bi si wàllu sécurité alimentaire si wàllu yooyu yëpp soñ nañ leen li nga xamante ni gouvernement bi baaxee na di ko jox kilifa kilifay diini yi suñu àggee si jamono yii la muy gàmmu gi loolu tamit soññ nañ leen ci ñoom tamit jël nañ seen engagement soo demee si wàllu wàllu wàllu hydraulique noonu soo demee si wàllu communication noonu soo demee si wàllu osofore noonu soo demee si wàllu douane noonu si wàllu service de commerce de scène ay sapeur pompier yi si aju yëpp rek si wàllu kii yooyu du neex a lim waaye ñoom ñëpp ñu ngi fi woon tabaarakallaahu wax ñu jox leen su ñuy bëgg-bëgg ñuy wax ñoom tamit ñu jël seen engagement fas yéene satisfaire yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ak communi euh, comité d' organisation bi nga xam ne mooy daayira ahlu mahabbat yi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk gàmmu gi ak la ci aju muy wàccaay wi loolu daal si tënk mooy li nga xamante ni mooy ñu dajale woon fii tey si Daaru Salaam ñu def lu ñuy def CLD donc def nañ ko ba pare ñu doon résumé nag ne lii lañ waxtaanee lii lañ tënk suñ toogee ab diir fukki fan ci kanam wala la si tegee du bari danañ defaat beneen CDD loolu ñu koy def euh, préfecture su ko defee ñu dem dajaat ak euh, euh, sous préfet ak chef de service yi nga xam ne ñoo toogal gouvernement bi fii si département bi su ko defee ñu defaat xayma préfet def xayma ñu seet li nga xamante ni moom lañ tënkoon fii moom lañ proposé woon fii fan la liggéey ba toll ñu gën leen di soññ loolu mooy li nga xamante ni fa lañ tolloo tey mooy CLD def nañ ko jaaxa euh, tàmbale nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim tabaarakallaahu xàgg na si alhamdulilahi rabbil alamin guddi gi nag mu nekk guddi gu am solo guddi goo xam ne wax naa sama njëlbeen ne mooy guddi gi gën si guddi yi muy bis boo xamee ne ak guddi goo xamante nit warna kenn si ñun war koy waajal si wàllu kàttanam si jëmmam si xam-xamam si wàllu alalam lépp lo xamante ni guddi gi laaj na ñun bum ñu buñ si dese dara nañ ko jox suñu temps nañ ko jox suñu kàttan nañ ko jox suñu alal nañ ko jox suñu lépp ndax guddi googu ki nga xam ne moom ñuy màggal waral ñun ñu am yàlla moo wax yonent salaa salaam ne ko bindi naa la yow ngir sama bokk ngir sama bopp bindi naa mbindeef yi comme ngir yow kooku nag nga xam ne moom la ñooy màggal te ñun moo tax ñun ñu am te moom moo wax ne ku ku bég si man man danaa bég si yow kooku nag kon ñun nañ bég si bisam bi nañ bég si guddeem bi lépp lum laaj ci wàllu coono ci wàllu vraiment nañ ko def dalal gan yi yaatal dënn yi ubbi néeg yi bàyyi lal yi ak gan yi ndax gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ gani Maulana Sidi Alaaji Omar Ndaw radiallahu anhu la kon képp kenn si moo xam waa ñi organisé la mooy comité bi di daayira bi moo xam service service yi fi teew kenn ku nekk kat suñ ne guddi yonte bi salaam guddi yëpp kenn ku nekk guddi guñ la tuddee sax nga sonn sax guddi gi nga xam ne nag moo tax yow nga am moo tax lu ne am kooku suñ koy suñ ne guddi googu te Maulana Sidi Alaaji Omar Ndaw mu ngi woy si téere boobu nga xam ne moom la ko jagleel muy loolu al mu ne képp koo xamante nii am nga yitte farlu nga ba def dara moo xam moo xam sa kàttanu doole la wala sa xam-xam wala sa alal nga jël loolu dugal ko pour fexe bis bi réussir wala guddi gi réussir nee na sa taxeeg ëllëg mu ngi aju si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yonte bi képp koo xamante ni moo la wala ràmm kon sikk nekkul si ni yow sa ëllëg mooy dem ajana te kuy dund si àdduna da ngay gën a bëgg mooy ëllëg soo dee nga dugg ajana bis bii nag occasion la guddi gii occasion la si ñun pour ëllëg suñuy dajeeg yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu si barke yonent bi si alayhi wasallam kon ñun ñëpp nañ ànd waaj lépp lum la ñu def ko nekk ci gannaaw xalifa al Mouhamadou Bachir di ko nuyu di ko siyaar di ñaan yàlla mu yàggal ko fi moom mboolem njabootu Mawlana Sida Juma Ndaw ak muqaddam yi ak taalibe yi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërëjëf bu am solo la ndax wax dëgg yàlla bokk na si liñ doon discuter léegi ak ñi nga xam ne ñoo war ñoo amee wàllu sécurité muy gendarme yi ak policiers yi ndax commité d'organisation bi moom dafa si bëgg-bëggu sëriñ bi dafa am lu muy bëggee diggante tànt bi kër sëriñ bu mag bi tànt bi ak jumaa ji loolu ñu yaatal ko si ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk commerçant yi loolu at yi yëpp ñu ngi si di naxanteeg ñoom di leen wax ne ñun de fii lañ bëgg ngeen em li si def si bayal bi ñu bàyyi ko pour nit ñi ñi bëgg dem ci kër sëriñ bi bëgg dem si xabru bi bëgg dem si jumaa ji su jaaykat yi féexalee foofu nga xam ne ñiy dox rek di dem ak ñëw ñoo fay jaar dana yombal dem bi ak dikk bi tey tamit comme dëkk bi ni mu bindoo dafa am yoon yu bëri yoo xam ne ñooy bayakoo si tali bi wala bayakoo si yeneen dëkk yi di ñëw yi gën a bëri day ñëw si jumaa ji kon oto yi tamit dañuy faral di ñëw si jumaa ji oto yi nag su ñuy ñëw di si jumaa ji di wàccee nit ñi nit ñi di nekk si e, bayaalu jumaa ji ak kër gu mag yi ak tante bi loolu suñ ko bëgg a boolee bokk ak ñi nga xam ne ñooy commerçant yi dana gën a dana indi ay jafe-jafe loolu waxtaan nañ si di sàkku ndimbal si ñi nga xam ne ñooy gendarme yi ak policiers yi te ñoom accepté nañ loolu dañ ñëw ànd ak lenn daf daal benn équipe boo xamante ni si organisation bi lay bàyyi ko ñuy organiser ñoo ñoom la ñuy jël ab équipe boole leen ak euh, force de l'ordre yi ko defee ñu wax leen nii lañ bëggee loolu tamit dañ ci def réunion incha allah ak maire nga xam ne dana dajale ñi nga xam ne ñooy nekk di jaay place yi ak moom si boppam ak comité bi ñu toog waxtaan si ba ren ñu am si benn benn euh, benn ñu am benn solution boo xamante ni danañ gis ne ren danañ fexe ba li nga xam ne moo wër euh, jumaa ji ak tante be kër gi ak kër sëriñ bi mu mucc ayib si yu demee noonu nañ fexe daal ba comme ni nga ko waxee ndax daan nañ si def suñ kémt lay kattan waaye suñ demaan ba ngoon rek wala ba guddi nga gis ne ñiñ tere woon yëpp daw nañ ñëwaat loolu nag incha allah bokk na si yi nga xam ne moo gën a jàmp ren danañ si def suñ kémt lay kattan ba loolu daal ñu féexal bayaal bi féexal jumaa ji ak li ko wër féexal tante bi ak sëriñ bi loolu daal mooy li nga xamante ni jël nañ décision bi ndax si ànd ak ñi nga xam ne ñoo amee sécurité bi muy waa daayira bi ak force de l'ordre bi muy gendarmerie ak police te waxtaan nañ si incha allah bokk na si liñ waxtaanee loolu tamit lu am lu am solo la ndax maa ko doon wax rek ci sama sama biir wax wax naa ne ñu ngi dëgmal guddi am solo ñu ngi dëgmal guddi gu rëy taalibe yi di bàyyi ko fu nekk si biir réew mi ak bitim réew di ñëw fii si Daaru Salaam tànn fii màggalee ko si seen kër sëriñ Maolana Seydi Jumaa Ndaw nga xam ne léppam yonent bi salaa salaam la moom wax na ne am na juróom fukki at moom du tàqali ko ak yonent bi salaa salaam jamono bu ne rek mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi nekk yonent bi salaa salaam cofeel googu mu am si yonent bi bëgg googu mu am si yonent bi ak euh, wàccuwaay bi mu am si yonent bi loolu dafa saxoon daay man waaye wax na ni su weeru gàmmu feeñee bañ wax ne weeru gàmmu feeñ na li nga xamante ni ñoo fi nekkoon nekkoon nag moom ci mag ñi daan nañu wax ne danay gis mbégte mu gën a yaatu dégg maanaam dañ ko seetlu si sëriñ bi ne daan na bëgg daa waaye su weeru gàmmu jotee danañ gis ne beneen mbégte mu bees am na ndax weeru eh, weeru weeru ki nga xamante ni mooy weeru gàmmu di weeru yonte bi salaa salaam yi nga xam ne si la feeñ àdduna te si dalaaj ma ndaw léppam yonte bi salaa salaam kon képp koo xam ne yaa ngi bàyyeekoo sa kër bàyyeekoo sa dëkk nga si yéene ñëw fii Daaru war ngay xam loolu na koy waajalee mooy am yéene bu sell te gén ju mat sëkk pas-pas bu dëgër këkk parce que yéene dama ne man damay bayal koo sama kër dem màggali yonent bi salaa salaam si guddeem gii mu feeñee aduna tànn xadarat Mawlaana si laaj ma doon ne falaa koy falaa koy falaa koy falaa koy kooku nga xam ne léppam yonent bi salaa salaam la kon ñun ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñu nekk si dëkk bi wala ñi nga xam ne ñoo war a ñëw pas-pas boobu ma wax ak yitte jooju ak bëgg googu ak teggin jooju nañ ko am ba mat sëkk ki nga xam ne mooy xalifaam nekk fi tey di Cheikh Mamadou Bachir ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te am jàmm moom si loolu la nekk léppam euh, yonent bi salaa salaam la léppam bàyyam si dalaaju mandaw la kon képp ku tànn fii war ngay xam ne fii ki fi nekkoon yonent bi salaa salaam la fi nekkoon xalifaam la woon jërë juróom fukki at boo xëy ne jamono bu nekk mu ngi nekk ak yonent bi salaa salaam kon noonu nag su nekkee sa sëriñ xootee màggal yonent bi salaa salaam soo fay dem yii ma wax wax dëgg yàlla moo war a nekk sa sa sa yóbbal moo war a nekk sa àndandoo ba soo ñëw soo bayekoo ba ba ngay ñëw fii ak diiram li mu fi am loolu suñ ko defee danañ dajee ak yoolab màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dogal ñu àgg si si jàmm ba weesu ko yàlla defal ñu si kàttan ba nañ ko bëggee ñu amee ko ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm leen d'abord sant leen eh, di ñaanal sëriñ bi Cheikh Modou Bachir mm. eh, yàlla bàyyi ko fi ba sa kanam ak kanam te am jàmm ndax wax dëgg yàlla sag la si kër gi sag la si tariqa bi sag la si diine ci dëgg-dëgg bi mu toogee place su Mawlana Sylla Juma Ndaw dafa fees jàll la place bi la sëñ bi doon def loolu lay def lam doon wax loolu lay wax lam doon jëflante ak nit ñi teguwul si dara noonu la ku continuer ku mel noonu nag su toogee place bu mel nii jaaru na kenn ku nekk si ñu di yaa ñaan yàlla toogaay boobu yàgg ñu ngi ñaan yàlla toogaay boobu yàgg ñu ngi ñaan yàlla dem si gàmm gi si jàmm àgg si jàmm ñii ñëw ñëw si jàmm fekk ñu si si jàmm ñu ànd màggal ko si jàmm yal yàlla dimbali ñu ba loolu yëpp am kenn ku nekk lay njëriñal gàmmu ak la nga xam ne mooy avantage yi màggal ci du yonent bi salaa salaam yàlla dogal ñu dajeek moom allahumma